mbokk yi salaamaaleykum wa rahmatulah ñu ngi dellu di leen nuyu di ziar ñëpp di baalu ñëpp ak comme d'habitude rek ci at mu bees bi dugg nañ ci bisimilah rahmaani rahim yàlla na doon at euh, bi gën yi ñu weesu yëpp ak lépp lu waaye sabab rek yàlla ko suñu borom bi def mu doon loo xam ne moo ñu jik tey ñu ngi fii ak euh, Cheikh euh, Mouhamed Gueye borom kànnaar bi noonu lañ koy présenté euh, ñu ñëwaat seet ko du bu njëkk muy wax ci Sénégal ndaxte daanaka lu muy wax lu gën a am importance ci Sénégal la koy waxee ndax dafa dem ba Sénégal këram la Cheikh Mohamed ñu ngi lay nuyu di nuyu sëñ Fallou di nuyu famille bi yëpp ñu bàyyi nga nuyoog askanu Sénégal. macha allah aouzubillahi mina shaytan rajim bismillahi rahmaani rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmaani rahim maliki yawmi diin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdina siratal mustaqima siratal ladhina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim wala daalin mbokki jullit yi mbokki taalibe yi sopp yi xarit yi am di jàmm yi dëkkandoor yi ñu ngi leen di nuyu ku ne turam ak santam di leen baalu àq te di leen baal àq di ñaan yàlla boole ñuy jégal waaye di wax ne tamit atum jàmm naataange sutura xewal ci askanu Sénégal waaye tamit di nuyu Pa Maguette sama xarit sama sama sama lépp macha allah di nuyu sa caméraman bi moom it nga xam ne moom suñu xarit la macha allah di nuyu bi tamit waa Sénégal di nuyu directeur bi yàlla suñu borom yëkkati leen sàmm leen aar leen ba fu ñuy dégg télé yu mag yëpp ñu dégg leen fa ci barke Seydina Mohamed waaw di wax ne bisimilahi rahmaani rahim ñu commencé ci jàmm ak salaam. incha allah jërëjëf bi àgg na li ñu njëkk a waxtaanee rek muy yenn. points yoo xamante ni marqué na deux mille vingt et ñu ngi ci deux mille vingt deux ak lu ñu jëm ci lu suñu kanam bi ñu njëkkee rek mooy ci wàllu làmb la ñu njëkk a waxtaanee euh, dañu waxante woon téléphone nga amoon loo ma waxoon waaye làmb ji muy Bombardier ak Balla bëri nañ ko ba mu jeex tey le 3 janvier 2022 ban jàngat parce que gis nañu un Balla Gaye Bombardier surtout un Balla boo xam ni très mystique mystique bi bari lool lool lool ci làmb ji làmb ji ak ni mu déroulé li gars yi di wax mooy loolu ban jàngat nga ci am ci wàllu mystique wala ci wàllu xam-xam ak li nga ci gis. waaw euh, Pape Maguette ñu ngi sant yàlla bu baax euh, di julli ci yonent bi di nuyu képp ku nekk ci axlu làmb rek ndax bari nañ ci ay xarit waaye di wax ne làmb jooju am na lu ma ci waxtaanoon ak yow loo xamante ni euh, loolu moo am ba ci fin bi bi ci njëkk nag Pape Maguette gis nga kaaraange gu ëpp. dafay umbër waaw kaaraange gu ëpp dafay umbër maanaam bu ëpp mystique bu ëpp maanaam nit dina am kaaraange ba nga xam ne ndam sax dootul ko am te moo jekku ci gàllaaj li ñuy wax lu ëpp tuuru rek waaw te loolu daf ko dal beneen bi ci des muy làmb ji dafa bëri ay point yu ci nekk yoo xamante ni euh, dama ko ci gis ci avant ci jour bi ak après bi ci njëkk nag mooy dama gis ne Bombardier lim toog musul ci wàcc mooy nit la koo xamante ni gàllaajam bi ko ngemboon ci depuis mu commencé ba léegi gàllaaj boobu lay ngemboo. kon moom ak ñiy war sëriñ. déedéet moom du mbër buy war. ay sëriñ yu bees. waaw man man mbër mu simeeku dama su ma la xoolee damay xam sa gàllaaj yi baax na wala baaxul loolu nag ay mbiru ay suñu mbir bopp la. waaw waaw maanaam soo simee soo taxawee dinaa xam kii gàllaaj bu baax la yor wala gàllaaj bi mu yor baaxul te Bombardier nee naa la ba ma ko dalee suivre ci làmb ak léegi musuma gis mu simee ma gis na amul gàllaaj dégg nga te te moom wax na sax ni muy perte ay combat waaye moom du noonu lay perte ay combat combat bu mu perte kaaraangeem gu ëpp sax moo koy perte loo waaye du lenn loo xamante ne tey mën nañu wax na ci lii lañ ko jekk Bombardier ëppuñ ko gàllaaj ëppuñ ko doole ëpp dàquñ koo bëree. lan lay perte combat kon lan mooy perte loo nit combat ci moom lay doon. kon nag loolu mu nekk loo xamante ni tey euh, dafa dal Balla Gaye ci ci entourage. ñu bëri dañuy foog ne mbër sax bu nitam wàññeekoo dina xaw a sooke tuuti waaye wóor na ma ne pression bi Bombardier yor ci combat bi entre moom ak frère am amul pression bu toll noonu ci diggante moom ak waajuram ak ki nga xam ne moo ko yoroon di Balla Gaye numéro te teewul ne moom am défaite te làmb ji noonu rek la mënoon a demee gis nga am gàllaaju Balla gay moo tax sax mbiri gënul ñaaw nii. kon Balla Gaye defe tam mënoon na gën a ñaaw. non mënoon nañ ko gisee woon sax billaahi wal kitaab bi ay sarax ko ko dimbale. ay sarax moo tax euh, affaire yi ñaawul yenn teef yi nga xam ne ne tey mën na koo génn sax ci làmb maanaam moom mooy jël uniquement que ne moom dafay bàyyi làmb ndax euh, mbër la Balla Gaye mbër la te mbër. Euh, euh, su fekkee deretu mbër dafa nekk sa yaram am na yu bari yoo xamante ni da nga koy da koy gàccaloo si sa bopp te loolu daf ko daf ko naroon na dal ci làmb ji waaye tamit di ko wax mu gën a defarwaat ndax euh, dafa bëri ay tilim tilim yu nekk ci moom yoo xamante ni ci ñu ko jege waaw Balla Gaye dafa war a defaraat raxasaat boppam gàddaay bi mu doon wax ci moment bi la ko war a war a war a war a amee muy raxas entourage am xoolaat boppam li ko wër su fekkee bëgg na am carrière bu rafet ci làmb su fekkee bëgg na ko waaw na daf loolu maanaam mu raxasaat boppam taxawu boppam ngir li nga xam ne yàlla dafal na ko ko ci làmb mu bañ ko perte te li ko ci yàlla defal mooy nit la koo xamante ni ba àdduna tukki dootul fayati ci làmb te am na taxawaay yi mu fi am xam nga Tyson tolloon na ci jamono yoo xamante ne kenn du tudd làmb te doo ko tudd mais léegi dangay ngay toog 3 ans 4 ans doo dégg turu Tyson loolu mooy fay nit yaa ngi dégg te loolu mën na dal lu gën a yées loolu mën na dal Balla Gaye loolu nag li ko koy may mooy mu gën a defuruwaat. est-ce que est risque ci combat yi njëm ku ci mel ni booy ñaa ak Eumeu Sène comme da nga ne ci wàllu mystique ma am na lu bëri. waaw su ma doon moom sax. combat bi bu ci ne. date bi bu ñëwee. moom day fexe bañ pousse date bi gis nga date yi ñu ko jàppal ci combat yooyu bu ci ne baaxul ci moom. déedéet. booy euh, Boy ak Eumeu Sène maanaam carrière bu maanaam fin de carrière bu métti métti moo ko nar daal ci loolu barke alxuraan pa màgget li may wax nii yàlla rek laa ci xool waaw parce que dafa am lu mu perte loo xamante nii euh, pour mu am ko dafay dafay laaj mu mu wéet mu xoolaat boppam Balla Gaye euh, ci ci ci li nga xam ne ñàkk na ko ci ay sëriñ lim ñàkk ci ñu ko jege ñoo xamante ni yàlla rek moo taxoon ñuy ànd ak moom du alal ñi nga xam ne ne tey am na lum loon séq ak ñoom ci jëflante ñu ci ëpp daf leen perte te Balla Gaye musul ñàkk ginnaaw te loolu dafay yàqal mbër mbër saa yu wane ginnaaw dara rek maanaam jël la koy indil waaw dégg nga mbër ak buur ñooyam mbër ak buur ak sëriñ ñooyam lépp lu la mës a jege soo demee ba wan ko ginnaaw rek dangay mujj am problème problème yooyu maanaam gàcce lay doon ci yow du nekk ay problème mu ay tawat ak non non non ay gàcce lay doon ci yow gàcce yoo xamante ni doo xam foo koy waxee. kon daal ñaari combat yi moom bu changé wul date yi. préparé wul boppam dama ne défaite yu gën a ñaaw yooyu te amul benn sa xam nga nit ñi dafa am loo leen dal nag Paa Maguette gis nga alal du alal mooy mooy ut sëriñ. Pa Maguette mbër mi la ëpp mi ëpp ñaan moo la ëpp coloré moo la dàq wax dëgg te la muy financé ci sëriñ bi du sax bëri. déglu naa ci benn euh, euh, benn waa kër Bombardier mu ne Bombardier moo ëpp Balla gay ay sëriñ te moo gën a néew la li muy fay ay sëriñ wax jooju wax la dama toog ak benn joueur démb ma ne ko man Cheikh Mouhamed nekkul ne am alal mooy tax ma téye la nekkul ne ñàkk ko mooy tax ma bala man dal ma wax dëgg di jëflante ak man dëgg gis nga sëriñ dëgg dëgg dëgg fekk yaa ngi koy wax dëgg jàpp ko te yàlla tax loo bëgg mu defal la loo nekk mu ànd ceeg yow saa yoo ko wooyu mu wuyu la léegi nag mbëri amatuñ loolu ndax li tax mooy da ngay ànd ak nit koo xamante ne amul kóllëre mu soppi la ci ñàkk kóllëreem nga xam ne tey mën nañ dañ foog ne sëriñ lum jafe-jafe-jafe boo amee xaalis dam jënd ko déedéet sëriñ bu ñuy jànd ngir xaalis du sëriñ déedéet sëriñ bu ñuy jànd ngir xaalis du sëriñ ndax ñun ñuy wootee sëriñ ci Sénégal yëpp amuñu alal juñ amee xam-xam pour def ko ci suñu bopp yi pour fay ko ngir am xam-xam déedéet dañoo dajeek nit ñu baax ñu baaxee ñu seen xam-xam sama âge awma at yi mën a toll ma liggéey alal ju may demee di fay sëriñ naan ko jàngal ma xam-xam déedéet xam-xam ci mbaax ak yiw ak kóllëre ak pas-pas lañ koy amee léegi nag nit ñi dañu am problème boo xamante ni tey da ngay foog ne da ngay yëbbu ay millions ci sëriñ déedéet am na gàllaaj yoo xamante ni du ay millions lañ koy wecceekoo te billaahi wallaahi tàllaay gàllaaj googu rek mën na daan mbër te gis naa ay Bombardier ay fasam yoo xamante ni amul benn mbër muy muy dajeek moom te sa yaram du dee mbër yëpp buñ amul gàcce nettali ko muy li ko dalee li ko dalee li ko dalee ci ci ci Tyson ba ci ki mujj a daan bërki démb dama la ne kum ci mënti doon ba nga dajeek moom li dañ ci yow ba nga xam ne mënatoo dara ku ko ci mën a wax rek na ko wax te yàlla tax loolu ci ay fas lañ koy def te loolu ay pël koy def dégg nga bu buñ la riisoo rek sa yaram bi yëpp dafay dee non dootoo dootoo xamati sax looy def waaw te làmb yooyu li ci euh, euh, li ci Bombardier di bëgg mooy ni muy gën a guddee di gën a baax ci moom Balla Gaye su ma doon moom sax du ma bëreeg moom ci waxtu woowu déedéet ñëw rek combat non non maanaam avant sax jant bi di dugg sax nañ fexe bëre bëre bi ni musul bëre euh, euh, euh, Bombardier timis musul ne seetaanal déggoo ma de dama la ne nu mu gën a gaawee dinañ ko régler làmb ji gaaw jeex parce que heure boobu du ko xaar heure boobu du ko xaar te bu jant bi langee wàcc si suuf fas gum la fas ci sa sa cër yi dootoo fonctionné ti yaram bi nagam billaahi dina la daan jël bu bu soof te bombar Bombardier ñim daan ñëpp jël yu soof la leen daan xoolal Tyson jël yu soof la leen di daanee loolu nag ci gàllaaj la wax naa ne mbër bu ci amut colère di wor di wan ginnaaw say sëriñu démb dama leen dootoo amati ndam ba ba ngay sàngu